déglukatu mi FM dal leen ak jàmm ci seen euh, émission euh, sans filtre euh, fii ci Rewmi FM lay amee mercredi bu jot 15h jàpp 16h ñu fas yéene fi dalal ay ndaw tey ñu dalal Cheikh mbay moom artisan le teinturier ñu fas yéene waxtaanee lépp lu soxal seen métier bi nga xam ne bëri na ñi nga xam ne dañ ci yëngu mu doon métier bu am solo fii ci Sénégal. Euh, balaa ma koy jox kàddu gi Mor Fall ma bàyyi la nga nuyoonteeg mbokku auditeurs yi daal di ñëw ci rubrique actualité. voilà salaamaaleykum Sylvie maa ngi lay nuyu di nuyu euh, képp koo xamante ne ñuy déglu jamono ji si seen rajo Rewmi FM di jaajëfal suñu euh, gan gi nga xamante ni moom moo fi euh, la ñu dalal tey ñu waxtaan ci ponk yu am solo di képp koo xamante ne à travers les plateformes digitales bu ci mel ne Rewmi point com ak li nga xamante ni mooy suñu page YouTube moom mooy Rewmi officiel Rewmi TV donc leen nuyu rek dina waxaat ne comme ni ñu koy waxee rek heure bu baax bi ñëwaat na. Mm-hmm. seen émission Espace Euh, nga ñëw rubrique actualité laa ngi jox kàddu waaw voilà comme ni ñu ko defee saa su nekk rek rubrique actualité tey dañuy ñëw ak euh, coowal ki nga xamante ni moom mooy euh, kilifa mi nga xamante ni jamono ji daanaka mbir yi mi ngi daanu ci kawam ci ay coowal visa ak lu ni mel donc ci ba mu njëkkee am nag tool bi amee ci internet bi ñu ne danoon trafiqué ay vidéo ay ay visa ak lu ni mel moom ci boppam génnoon la doon wax ne loolu lépp laalewu ci ay euh, mhm. euh, mbir yu ñu ñu monté la ak euh, ay du genre dañ ko bëgg a taqal mhm. donc moom waxoon ne ay oto la jaay koo xamante ni xaritam la ñu am lien de d'amitié bu toll ci vingt ans Euh, ci li mu expliqué woon ne kooku dafa amoon na euh, oto bu mu ko bëggoon jaay ci bu njëkk jubóowuñu woon ne nag ci deuxième fois bi mu gis beneen oto boo xamante ni sawa yor na ko euh, mu na ko na ko jaay parce que soxnaam la koy jox donc kilifa ne kooku daal di koy jox fay benn prix jox ko avance lu toll ci deux millions ba noppi ay quelques minutes après moo ñëwaat ne na ko àll 500000 donc ci li mu expliqué. léegi mu muy mu nekk 1 million 500 après mu bëgg koo joxaat yeneen 3 mille 3 millions euh, bëgg ko aussi yeneen 500 mille donc mu ne vidéo yu njëkk yi 3 euh, millions yi nga xam ne kooku mi ngi ko jox ci oto boobu la. mbiru oto la woon oto la. mais waaw mais li gën a li gën a bizarre ci mbir yi moom mooy ci vidéo yi dafa am vidéo bu njëkkoon génn boo xamante ni euh, kooku ba mu koy jox xaalis yenn waxi génn ci woon mais kooku il a fait exprès filmer ki nga xamante ni moom mooy kilifa sa à son donc mu nekk loo xamante ni loi Sénégal nangu ko parce que nit ki war a ko filmer à son insu euh, lu ci mënti ànd daal je pense que loi loolu dina ci am nu mu ci jël. mais ñaareelu ñaareelu mais ñaareelu vidéo bi nag moom moo gën takkal ki nga xamante ne moom mooy kilifa. parce que ñaareelu vidéo bi kooku génn na ñaari paquetu xaalis yu toll ci 2 millions jox ko kilifa. mais si seen biir essence ñoo ngi dégg ñuy wax ay waxu passeport ba kilifa am ku ko woo téléphone ci si biir oto bi sax mu naan ko jox naa rendez vous 15 heures affaire passeport mais mu génn ñaari passeport jox ko ba ko wax génn benn troisième passeport mu ne ko euh, escale bi lii mënuma ko def parce que mu ko da ngay jàppale kii sama mbokk la. Hmm. donc ça veut kon joxante nañ ay passeport yoo xamante ne ñu ngi ciy waxtaan. donc on sait pas ndax coup monté la wala nu mu mënti doon mais fi nekk nii pour kilifa seetal boppam ci mbir mi. du yomb parce que flagrant la. Hmm. ci liñ gis ci image yi. Hmm. on sait pas ndax kooku dañ koy yónni pour mu dugal ki nga xamante ni moom wala boog loo xamante ni kilifa si boobu moom moo ko def. Mhm. lu ci mënti am je pense que nekk nii. kilifa daal amatul lenn loo xamante ne mën na ko wax ci kanam Sénégal parce que ñu bëri boo gisee internet bi ñu ngi koy euh, dóor ay xeer parce que nee nañ ñoom ñëpp ay dóorkat lañu. Mhm. ñi nekk ci biir yaramaar ñëpp parce que ñu si nekk ñëpp. laale nañ ay mbir yoo xamante ni yaanaa maar nee nañ génn ñu bëri dañ ñoo yem rek parce que ñoom ñëpp ñu ci bëri laale nañ ci ay mbir yoo xamante ni daanaka ay dóor la ku ci mel ne ki nga xamante ni euh, ñi ñuy wooy ay activiste parce que nee nañ ñoom ce sont juste des opportunistes yoo xamante cache derrière li nga xamante moom mooy des combats euh, de la société juste pour se faire un nom après mën di doo seen ay business suuf euh, gis ngeen lu fi xewoon ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Guy Marius Sagna ñu jékki-jékki defal ko benn genre appel ne il faut ñu oto ko oto parce que wóotul ñu oto ko oto affaire du genre donc quelqu'un koo xamante ne dañoo mi fonction publique te à chaque fois ñu tëj ko donc day day nduru genre day jox gëdd dëgg book ñi nga xamante ni fi mu ñoo nekk ci internet bi wax ne Euh, la plupart des activistes ce sont juste ce ne sont pas des activistes mais des opportunistes yoo xamante ni ils sucent le sang mm. des sénégalais parce que sénégalais dafa nekk koo xamante ni dafa sensible mm-hmm. da nga koy laal fenn rek mu mu yërëm la commencé na dañ ko war a jàppale kilifa nag man du ma ne fii dama koy dama koy blâmer aussi du ma ko jàppale aussi parce que koo xamante ni yàgg na xeex ci komba yàgg na taxaw ci kenn koo xamante ni lépp lu sénégalais yi euh, di ñaawlu moom moo taxaw ci kanam mais lii daf ko wàcce si bas ci bu fekkee ne liñ authenticité vidéo yi dëgg la mhm. parce que sénégalais mën na lu nekk euh, technologie mën na lu nekk mais lii vidéo yoo xamante ni mhm. filmé nañ ko loo xamante ni yëgu ko gisu ko bu porte plainte ki ko filmé mais jusqu'à présent lii ñuul ci mbir mi jusqu'à kenn owu ko fenn waa kenn owu ko parce que euh, moom dafa teel dafa teel a waaxu waaxu mbir mi parce que dafa teel a wax ne bu fekkee lu ñu wax dëggal nañ nañ ko woo si kanamu yoon na ko procureur woo mu leeral mbir mu demee aussi ne dina porter plainte ñi nga xamante ñoom ñooy site boobu ko def leeral moo génne gum vidéo yi te te te leeral mi nga xamante ni moo génne première vidéo bi moom moo génne deuxième vidéo bi ginnaaw bi kilifa ne fi mu nekk nii Euh, daa prêt pour porter plainte donc cela veut dire que ñi nga xamante ñoom ñoo ils sont détenteurs de des vidéos ñoom am na fu ñu taxaw moo moo waral ñuy génne ay vidéos mm-hmm. comme ni mu ko defee woon ci li nga xamante ni mooy wàllu ay affaire ay ay aji saar ak yu ni mel mm-hmm. donc cela euh, benn option la kii amagum juste conseil lañ koy jox que il porte pour ñu utilisation boo xamante ni tegul ci yoon ci ay parce que dañ ko dañ ko filmer à son insu mm-hmm. loolu nekk li nga xamante ni moom moo gën a fës ci li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, actualité euh, à part bi nga xamante ni moom mooy wàllu euh, coowal oxygène fi amoon ba njiitum réew mi génn ne nañ léegi li nga xamante ni moom mooy utilisation wu euh, oxygène yi léegi c'est maintenant gratuit ci ñi ñuy prendre en charge ci wàllu Covid bi mu leer nag Sénégal Sénégal daa bëggul yomb. non ñu nekk ñu nekk ci privé yi te mu nekk ci wàllu Covid bi. Mhm. na leer. Mhm. sénégalais boo nee boo nee oxygène rek kéem asma daw ne man tamit léegi damay dem ci kii parce que Macky Sall nee na oxygène bi c' est yi. parce que yi nga euh, ñu ni mel dañoo bëggul yomb leen ci kii neen Macky Sall nee na euh, prise en charge euh, oxygène bi c' est gratuit alors que ci affaire Covid 19 bi la. Mhm. voilà loolu li xamante ni moom moo nekk actualité yi gën a fës ci biir Sénégal donc di ñaan jàmm rek ak taw bi nga xamante ni jamono ji euh, mi ngi euh, ci biir yoon bëri na mm, inondation yaa ngi fi ak fraude yi ci baccalauréat bi mm. waaye dañ koy euh, tegam na la parce que mm. dañoo am invité Khadim Mbaye artisan la teinturier Khadim Mbaye ñu ngi lay dalal suñu plateau di la nuyu bàyyi la nga nuyoon teeg mbokk auditeur Rewmi FM waaw salaamaaleykum waa mbokki auditeurs yi mi FM maa ngi leen di nuyu nag ñun ñëpp kenn ku nag sa tur ak sant di nuyu Baye Mor di nuyu Sevli Sevli mm-hmm. mm-hmm. di leen jox seen yéeguwaay kenn ku si nekk di nuyu nag euh, bépp auditeur réew mi FM maa ngi leen nuyu bu baax a baax mm-hmm. di ñaan yàlla nag euh, mbas mi nga xam ni moo fi nekk pour le moment muy muy covid 19 ñu ñaan suñ borom yàlla defal ñu si jàmm ba dàqal ñu ko ci réew mi ba kenn bañ see am daal loraange. Mm-hmm. parce que jamono ji métti na trop nag wax dëgg mm-hmm. yàlla feebar bi tasaaroo na ci réew mi. Mm-hmm. di ñaan yàlla tamit nawet bi nga xam ni si dugg ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbi alamin amiin am na solo am na solo Khadim Mbaye yow artisan nga teinturier euh, bokk nga ci ab association des teinturiers du Sénégal fii ci Sénégal euh, seen liggéey bi naka la demee yéen teinturier yi seen liggéey bi naka la demee. waaw avant boobu tamit maa ngi nuyu tamit bépp teinturier boo xam ne mi ngi senegal di nuyu ñëpp nag ñu nekk ci Séné dakaar ak ñi nekk ci sous raison bi waa teinture bi nag mooy sa mooy cuub bi mhm. bu ñu ko disee boo xool euh, dëkkul Sénégal maliens yi ñoo ko ëpp lu ñu ko daan def mhm. léegi nag euh, maanaam xam-xam li ñuy wax rek xam-xam dañ koy jàngi ba fu nekk mhm. léegi sénégalais nag am nañ matuwaay boo xam ne dem nañ jàngi ko ñëwaat ko fii di ko def ci seen réew bu ko defee doomu réew mi di si jàng ñu siy jariñu tamit waaw. Mhm. Euh, dangeen demoon ba Mali jàng ko wala. waaw dañoo dañoo demoon ba Mali am na ñoo xam ne dañoo dem Mali man fii laa ko jàngee mais ki ma ko jàngal Mali la ko jàngee. ba léegi nag yàlla def nañu si métier bi moom macha allah maîtriser nañ ko te ñu ngi si defal ay formation doomu aadama yi am nañu si jariñu tamit waaw parce que ku ne xaj na si daal mm-hmm. cuub moom maanaam métier la mm-hmm. ni métier yi mel noonu la mel jamono jii nii mm-hmm. bu nee cuub na jigéen ñee tax mais léegi góor yi moom ñu ngi siy dugub bu baax ñëpp a ngi ñëpp a ngi sol cuub waaw waaw gis nga <laughs> <laughs> waaw en général yan façon tissu ngeen di utiliser pour di ko def mu nekk cuub waa cuub bi na maanaam lépp lu jëm ci wàllu artisanat parce que booy xool jasneer yi si la malien yi ëpp lu ñuy cuub ñoom booy xool bu nee jasner bi nag dafa bari qualité parce que bu dee magnum gold bi boobu du pour cuub mais jasner artisanal bi lañuy cuub mooy empereur super vainqueur ak euh, textile yooyu ñooy pour cuub am na yeneen yoo xam tamit ne deuxième soie yi comme léger yi te si léger yi tàngaay euh, mbasin yeneen yi tamit bañ a mooy deuxième soie yi nga xam ni mhm. ñoo gën a wàcc daal yooyu lañuy mhm. cuub waaw mhm. waaw euh, xeetu tissu moo am boo ngeen di def mu nekk cuub parce que am na damay gis korite wala tabaski bu ñëwee da ngay gis tissu yu bëri day daal génn. waaw xam nga nag léegi nag euh, tissu yi génn dafa bëri ak euh, chinois bi nii. Mhm. dafa am tissu yoo xam ne dañu si daan def lu méttee métti pour que ñu am lu ñu bëgg. mais léegi chinois bi mu ñëwee daf ñu ko yombal comme tissu léger yi xam da nga daan teg ay bougie yi léegi doo tey tegat bougie yi léegi chinois bi daf ñu ko yombal ba nga xam ni wiiri wiiri la tudd boobu pour léger yi pour jigéen ñi la. bu oyof la yéen a koy ñoo koy jël ñu ko. léegi nag jasneer bi nag moom dafa bari ay qualité parce que man nga si liggéey loo bëgg xalaat rek mën nga ko si def parce que am na cuub bu takk am na VIP am na Facebook te léegi cuub bi dafay avancer comme euh, technologie bi ni mu avancé noonu la cuub bi avancer mhm. léegi am na yoo xam ne comme genre sérigraphie la loolu si nekk di di di sonn yenn sonn yi mhm. léegi am na cuub boo xam sax machine moo koy cuub léegi muy Facebook VIP bi tamit ay tableau sérigraphie nañ jël muñ cuubee pare teg ko ci kawam daal mhm. waaw Hmm. lan may waral euh, cuub bi di cher. waa cuub bi nag li tax damay gis ay mètre douze mille. Hmm. ay mètre treize mille ba quatorze mille. waa léegi nag xam nga ku bëgg lu baax moom il faut nga génn xaalis. matériel bi ngeen utiliser matériel bi bi ñuy amul lenn loo xam ni fii lañ ko defaree. ci lu wàllu lu jëm ci produit chimique bi muy teinte bi Allemagne lay jóge xeme bi Mali lay jógee Allemagne yi bi kon amul lenn loo xam ne moom lañ defaree Sénégal. rawatinaa na ñun jafe-jafe biñ gën a am na ci cuub bi mooy wàllu mbasin bi. Mm-hmm. parce que ñun Sénégal duñ fi wàccee mbasin Mali la ñuy wàccee mbasin te bu ñu jëndee foofu Mali bu ñu bëggee def dédouanement yi bu ñu ñëwee fii nii li ñu koy jaayee dafa cher ou bien tamit li ñu koy jëndee day cher ci ñun. Mm-hmm. am na si ñoo xam ne comme man sama genre gi damay jaayi mbasin damay jëli mbasin Mali su ma ñëwaatee fii dama koy jaayee prix. en gros prix en détail mm-hmm. mais ba tax na daal mbasin bi essence yi daal mooy suñu jafe-jafe parce que trente mètres yi dafay cher boo ko naree jaay mbubu six mètres da ngay day day day day yëg daal affaire niveau bi day yëg waaw mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, yow sànq yaa ngi wax waxuma euh, formation euh, da ngeen di dajale ndaw ñi di leen former wala nu mu waaw léegi nag formation bi mi ngi mel ni comme mair euh, maire yi communes yi wala autorité yenn yi nga xam dañuy bëgg jàppale seen goxu seen doomu gox lu mel ni suñu yaay booy yi nga xam ni bu ñu jógee ci kër yi dañuy def dara dañuy def benn activité léegi am na ay formation ay GIE ay yoo xam ni dañuy soxla ku leen defal ay formation léegi nag formation yoon nag cuub si la bokk parce que cuub dafay jàppale suñu yaay yi parce que peut-être tey su fekkee ni que sax yow amoo client mën nga si jariñ sa bopp maanaam kër gi du we du ñàkk ay yére yoo xam war nañ ko changer nga ñëw ci waatal ko léegi nag bu ñu defee bu ñu jëlee nag ñu defal formation comme dañuy dem ay yenn sous raison yi dem ay for di def formation dix jours. Mhm. Dakar tamit dañ fi def ay formation ci yenn commune yi daal. Mhm. waaw yéen doo leen di fa utiliser vax. waaw non vax duñ ko duñ ko utiliser. pourtant damay gis am na yenn vax yoo xam ne day ñuroog cuub. waa léegi nag xam nga chinois bi moo yàq cuub bi parce que ñun lu ñu ñu jafe-jafe boobu nañu dund instant bi parce que lu ñu cuub rek bu amee deux semaines chinois bi dem jënd ko ci ñun bu subaa nga gis ko ci marché bi alors que nag bu njëkk loolu amul suñu maman yi deuxième soir nañu doon cuubee mais si nañu am teraanga bu ñu am te si nañ ko amee mhm. mais léegi nii nag moom lépp loo génn rek échantillon boo génn rek bu subaa nga ko ci marché bi mhm. waaw justement loolu ban euh, marché chinois ban impact la am yéen ci seen liggéey waaw dafa am impact parce que ñun bu ñuy def ñoom ñun bu ñuy def cent chinois yi mën nañ def trois cent te alors que ñu suñu bos mooy gën a mooy mooy gën a nekk qualité mooy gën a baax mais chinois seen bos du qualité. te boo fóotee day dañ. alors que nag li naan roy du niroog pire nag mënuñoo niroo doy niroo niroo mais dafay am dafay am tuuti méngoo boo xam boo xoolee daal li nga xam ne lii ci échantillon cuubkat yi si dañ ko jëlee. waaw te bu ñu nee cuub bu njëkk booy xool suñu maam yi ñoom ñoo doon def ay ngañ dañ daan jël ay garab di ko weer ba mu wow di ko dëbb def si ndox tuub ko. ak euh, nganj bi nii si nañ daan cuubee ak di jël guro guro sànkar bi. Mhm. dañ daan jël guro weer ko ba mu wow dugal ko ci ndox xooj ko jël sa yére dugal ko si. Mhm. loolu moo indi cuub fii Sénégal. Mhm. waaw mais est-ce que yéen doo leen adapté wu marché sénégalais parce que Sénégal gis nañ euh, pouvoir d'achat bi demewul noonu du ñëpp ñoo am possibilité jënd cuub mettre euh, dix mille onze mille ba douze mille. te chinois bi moom loolu da koo xam day ñëw di jox Sénégal di defar ay cuub wala jël vax bi def ko ba hmm. mel ni cuub. Hmm. di ko jaayee mettre mille francs wala mille cinq cent bi euh, à côté yéen ngeen di jaay ay mètre onze mille. est-ce que hmm. doo leen euh, équilibrer un peu parce que sénégalais lañuy bëgg. Hmm. mais du ñu am xaalis. waaw léegi nag xam nga sénégalais yi tamit ñi nga xam ni xam nañ lu baax bëgg lu baax parce que ku sol lu baax kon dañ xam ni kii sol na qualité. léegi nag chinois bi booy xoolee moom côté bi mu ëpp loo xam ni foofu la gañee muy wàllu vaccin yi. Hmm. parce que vaccin yi day jël lu mel ni lu méngoog cuub. def ko si mais mbasin bi tamit moom amagul expérience pour dugg foofu noonu. parce que lenn rek la mën a jël ay sérigraphie bu ko defee ñun suñu liggéey day xaw a wàññeeku dinañ mën a jël dem ci lañ si coono bi si daan def daal dootuñu ko si defati. Mhm. mais lu jëm ci wàllu jesneer moom ba léegi moom macha allah quoi waaw. Mhm. te booy xool cuub bi léegi macha allah sénégalais yi léegi maîtriser nañ ko parce que booy xool sax gars yi dematuñu Mali. Mhm. waaw fii la ñuy fii nañuy yem cuubloo ba pare tamit comme Sénégal gëmul boppam yow nga gis ku sol cuubam wala nga dem HLM ni bi fu mu jógee ñu ne Mali lañ ko jëlee. wala nga def commande ñu la commande bi ñëwagul mi ngi ci woon te alors que ni que Sénégal lañ ko cuubee. Mhm. yooyu yëpp dañ koy dund fii nii te alors que maanaam li may wax rek mooy sénégalais moo gëmul boppam. Mm-hmm. mais fa ñu fu ñu bëgg a àgg fu réew benn réew àgg rek ñun war nañ fa mën a àgg. Mm-hmm. surtout jamono ji ci wàllu cuub bi nag. Mm-hmm. waaw d'accord moo faal. waaw voilà donc euh, ma koy nuyu di ko euh, donc jox wàccuwaayam ci liggéey bi nga xamante ci lañ nekk muy wàllu euh, cuub te cuub yàgg ci biir réew mi. donc mu nekk loo xamante ni bu njëkk man ni ma gisee cuub ni nga koy defee ak yow ni nga expliqué nii dafa mel ne am na benn différence bu ci am. parce taa yu njëkk da nga naan ngay ñëw ne jaay ma ban façon cuub nga Mali. wala cuubu tàpp hmm. donc foog nga ñëw ñu expliquer ñun la mooy cuubu li cuubu tàpp la wala boog li cuubu mali la parce que dafa hmm. mel ne ko bu ñu nee cuubu tàpp daa mel ne kon hmm. euh, cuuba jóge mali kon tàpp ñu ko wala boo dafa am ni ñu ko defal noo xamante ni euh, Sénégal bu ñëwee li mu njëkk a mooy ndax li cuubu mali la ndax mali dafa am euh, loo xamante ne ñoom dañ koo xam li ñu naan ginde lu màgget màgget am ngelañu goo xamante ne lu mën a jommal gane ndax dañoo am benn benn mbir woon dañ ko won nëbb ko won sénégalais yi wala dañ ko won n'importe qui pour mën koo mën a def ak aussi lan moo doon waral euh, seen jafe-jafe yi am ci cuub bi mooy nit ki day jënd cuub ne man jënd naa cuub yàggul fóot naa ko mu xotteeku loolu lan moo koy indi aussi parce que parce que mm. teinture ndax si ndax si euh, si tissu bi la wala boog ci produit yi ngeen utiliser parce que xamee ku dem baxee dugal ci li nga xamante ne moom mooy wàllu tissu donc te xamee produit chimique la boo xamante ni euh, daanaka am na daal mbir yoon bu ci nekkee day gaaw yàqu donc yéen naka ngeen def ba mun a équilibrer li nga xam ne moom ngeen utiliser parce que li ngeen utiliser lépp ay produits chimiques la boo leen paree da ngeen koy tuur ci environnement bi mu am impact bi mu am yéen aussi yéen ñi ci liggéey ay jafe-jafe ngeen di am parce que euh, jël ndox mu tàng def ci li nga xamante ni moom mooy xeme bi loolu ngeen di nooyi jafe-jafe yooyu ndax di dangeen koy faral di am dangeen faral di euh, jàkkonte ay feebar yoo xamante ni ay euh, feebar pulmonaire la yooyu yëpp lañ bëgg ngeen ngeen ñëwaat si mais bu njëkk li njëkk moom mooy naka la ñu mën di xamee ndax lii mooy cuubu tàpp wala boog lan mooy différence cuubu tàpp ak puub cuub Mali ndax Mali ñoom seen seen kii day ñëwee cuub fe daa daal di weer wala bokk dafa am ñoom euh, façon bu ñuy tàppee moo waral Sénégal bu ñu ñëwee bu ñëwee si boutique bi dañ naan la ndax li cuubu tàpp la wala cuubu cuubu Mali waaw sëñ Mor waaw maa ngi kontaan tamit ci question yi ngay posé yëpp parce que lu am solo la parce que day baax ñuy leeral nit ñi tamit mhm. parce que maanaam li ñuy wax roy du nuroog piir mhm. te maanaam ñi nga xam ni ñoo wàlliyaan yi ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci métier bi bokkuñu mhm. te métier boo gis bu nekk na di nga gis ñoo xam ni maanaam qualifié nañ si gis nga ñoo xam ni ay saboté nañ parce que boo gisee li tax euh, tissu bi des fois nga koy cuub mu xotteeku parce que nga sol ko wala nga sol ko benn yoon de mu xotteeku maanaam dosage su sege xeme bi nga xam ni moom nañ nga war a def ci yére bi dosage bi am na benn boo xam ni moo si ëpp moroomam mhm. te bu si ëpp moroomam rek boo ko fóotee dina la indil ay jafe-jafe wala nga sol ko mu xotteeku sa kaw yaram mhm. ñaareel bi tamit maanaam mooy que ni que Sénégal fii nii tey tey bu ñu nee cub Cité des Eaux moo tax mhm. te Cité des Eaux mooy centrale cub Sénégal parce que lépp a ngi fi maanaam booy xool maliens yi sax ñun dañuy man damay liggéeyaloo malien parce que boo dem boo xoolee gaar ba léegi amul kenn kuy dem Mali HLM waxi nopp HLM amul benn magasin bu dem Mali te alors que seen doomu réew Sénégal ñi ngi fii nekk fii jàng métier bi nekk fii war fa tekki ñuy jël mhm. métier bi di ko jox ñeneen mhm. alors que li li li ñuy wax rek kuy wàll yaani sa réew moo tëggul mhm. sénégalais yi li lii seen problème mooy dañoo gëmul seen bopp. Mm-hmm. bu ñu gëmee seen bopp lépp lu malien bi def ñun war nañ ko def. war nañ ko ma mm-hmm. def. mais est-ce que malien bi nag ñoo jàngal lépp la jógee moom ndax malien malien moom cuub moom. waaw ku mel ni exemple man man tollootu fa fu may jàngee. Mm-hmm. ñàkk ay matériel jumtukaay maanaam xool li nga xam ne échantillon bi nekk Mali. su ma ko xoolee rek loolu dama koy def. léegi nag ñun nag tey am nañ ay. am nañ ay employé fi may liggéey am na ay employé yoo xam ay malien lañ mhm. lu xew Mali lu nekk ñi ñoom dañ koy def te ñu ak mhm. ñoom ñoo koy def ensemble mhm. comme boo nekkee ci liggéey rek boo ko gisee ñaar yoon rek après ñetteel bi dangay demal sa bopp noonu la demee ba tax na fii Sénégal nag am na ñu bari ñoo xam dañ leen di solal ñu ngi ci télé yi artistes yi solal te cuub yooyu yëpp ngay gis fii nañ koy mhm. nañ waaw nañ koy cuubee mhm. kon daal li ma mhm. xalaat mooy ñàkk gëm sa bopp rek la mbir mi mais mais li ci gën a bëri moom li ma gën a jaaxal moom mooy euh, ba léegi waxagoo lan mooy lan mooy cuubu tàpp wala mooy cuubu tàpp ak cuubu male est lépp benn la lan mooy cuubu tàpp parce que man temps yi njëkk bu nekkee mooy sama maam danaan ma danaan li ah. ciw tàpp la. waaw mais nag ciw boo xam ne bi day. xaw a ah, def nii ah da nga naan ko solee mu def hmm. nii def ñu xam ne kii grande dame la ciw ciw ciw bu tàpp. ñu ciw tàpp la sol. nga xamante ne day day day daan jaggi hmm. ndax ndax loolu dafa am différence ak ciw ciw Mali day mel day xaw a nooy tuuti mais bu ñu ñëwee ciw tàpp loolu nekk mbasin boo xamante ne boo ko solee nii da ngay mel ne daal. day dëgër waaw xam ma léegi lan mooy différence maanaam bu njëkk dafa amoon mbasin bu tudd gañilaa hmm. gañilaa nag boobu dañ ko daan gomm léegi nag boo ko gomee bari boo cuubee pare normalement ki la war a finition yére bi mooy tàppkat bi hmm. tàppkat bi nag dafa am tuubu papier tàpp papier am na ak hmm. tàpp sipeer hmm. ak tàpp béegos léegi nag cuub lu mu rafet rafet te tàpp bi rafetul cuub boobu mënoo mënul rafet léegi nag cuub fa mu ngi place am ba mu foofu mu nekkoon ba léegi fa parce que fii grand dame ñi ngi jënd ay mbubu trois cent mbubu deux cent mille mais léegi mbubu ba daan jël deux cent mille léegi boo amee cent mille franc am ko Mm-hmm. alors que loolooy wan ni liggéey bi kon léegi yàqu na parce que ñi mm-hmm. si dugg ñoom ñoo ñoom ñoo ko maîtriser wul bu baax mm-hmm. mais cuub moom tàpp bi moo am ëpp mooy li gën a am solo ci cuub mooy tàpp. yëpp lay tàpp wala du tis yëpp a yëpp a a yëpp a yëpp wala boog ça dépend ci ko liggéey boo gisee bu jaaree anam ba mu war a jaaree liggéey bu seetlee rek mm. di nga si am résultat mm. Mm. palmaan moom kenn mënu la wax du yëbb mais yëbb bi mën na wàññeeku ba nga xam ne boo toggee ci photo doo sentir ni koy yëbb na kon fi mu ne yow boo tawtewoon ni kon waaw bii bii su ma tawtewoon def dara parce que bii Galaxy la tudd Galaxy la bii VIP Galaxy la quoi palmaan la mais Galaxy nañ koy wooyee mm-hmm. Mm-hmm. waaw lan mooy waral muy yëbb produit yi ngeen utiliser la waaw parce que léegi dafa am benn produit boo xam bu ñu palmaanee ba pare produit liquide la si ñuy jël dugal ko ci ndox bi pour bàcc bi set palmaan fii bàcc bi setul moom cub bi du boo ko fóotee day bàyyeek wala boo ko solee mu mu yëbb sa yaram d'accord waaw yaa ngi wax sànq euh, métier bi dafa yàqu ñan nga jàpp ni ñoo ko yàq waa métier bi naka lañ ko yàqee. waa métier bi nag xam nga souvent tey ki nga xam dafa jël xaalisam dem def formation wala mu di mu for mu fay ñu defal ko formation ba mu am diplôme. Mhm. bokkul ak ki nga xam ni dafa jàng nii rek ci mbedd bi nii rek ñëw ñu ko doon bay parce que booy xool cuub bi ñu bari ñu si dugg léegi ci journal yi lañ daan commencé yenn ñi nga xam ne dañ ñëw nga leen fay journée deux mille cinq cent trois mille léegi ñoom ñooy dem di récupérer yenn clients yi di wàññi di wàññi prix bi. te alors que loolu noonu mën na yàq liggéey bi te instant yi ci liggéey bi ci yàq liggéey bi la jëm. Mhm. parce que booy xool léegi cub bi dafa daf dafa débordé koo gisat dee cub. Mhm. surtout nag suñu mbokk maa ngi jégg suñu mbokku pëlfuta yi ñoo gën a yàq marché bi. Mhm. parce que lépp looy jaayee ñoom lépp looy jaayee mille dañ fay jaay jaayee ko 3000. kon ñoom ñoo ñu gën a sonal ci marché bi. parce que booy xool malien yi moom. ñoom dañoo gëm seen bopp dañoo gëm seen culture. Mhm. fa ñu prix bi nekkoon ba léegi ñoom tegguñu ko. Mhm. mais mais cuubu cuubu yéen seen cuubu ak cuubu Guinée bokkul parce que cuubu Guinée day mel ne xaw ma dañ la cuubu yi cuubu takk. waaw cuubu takk mais léegi ñoom dañoo ñëw léegi comme que ñoom xamuñu maîtriser wuñu mais Siré mhm. des Eaux comme li ma central la. cuubkat boo sañoon boo xë boo sañoon foofu ngay nekk. léegi bu ñuy ñëwee nag le temps que ñuy indi parce que finition bi fii la ngay nekk Siré des Eaux le temps que ñuy ñëw dañuy xool ci li ngay liggéey ñu si jël nànk nànk nànk bu yàggee nag ñu dem wuti jasneer mm-hmm. dem defa seen bopp mm-hmm. parce que jasneer tamit nekkul loo xam n'importe quel nit moo koy liggéey mm-hmm. parce que cuub mën nga cuub dix ans te doo mën a cuub jasneer boo bëggee cuub il faut nga ñëw cité des eaux ñu jàngale nan nañuy cuubee jasneer bi d'accord mais mais la ma aussi ñoo ñoo di xatal si yenn ko ñu ndax seen produit yéen utiliser parce que ñu bëri dañ naan yéen foo leen nekk da ngeen di yàq environnement bi euh, ndax yéen euh, que euh, ay xeme ngeen di utiliser te xam xam ne produit chimique bu bu am doole la. Mhm. Euh, teinture yi ngeen utiliser aussi euh, am na benn température bu ñu toll aussi nit pour nga mhm. nooy ko problème la. Mhm. donc ndax yooyu yëpp si si yéen si bàyyi xel parce que di utiliser yenn produit nii rek euh, pour am xaalis alors que yow yaa ngi yaa ngi lor sa bopp. waaw loolu nag mooy suñu jafe-jafe parce que léegi jamono jii nii. que maanaam nit ku nekk rek da ngay da nga doon da ngay ñaan yàlla dund ba dee te yàlla loolu du teg benn nattu ci feebar. Mhm. Mhm. mais jamono ji maanaam liggéey moom benn jarul xeeb. Mhm. ba tax na produit bi nga xam ni si nañu nekk di di cuub. xam nañ ni baaxul mais nu ñuy def dañuy nekk ay ndaw da bëgg bañ a sàcc bañ def dara moo tax ñuy daan suñ doole mm-hmm. Mm-hmm. mais terewul nag man am naa samay partenaires yoo xam ne ay médecins nañ mm-hmm. dañuy ñëw di di ñuy defal ay maanaam ay tests yi maanaam lu mel ni hôpital Fann dañ fay dem dañuy dem principal dañuy dem euh, Nabi Souker ñuy defal ay ay ay ay visit foofu noonu chaque chaque un un mois ndax ndax ndax def ngeen ay formation parce que nee nga def nga ay formation ndax dañ ko day yemale rek ci wàllu teinture bi mais aussi est-ce que war ngeen def formation yoo xamante ne day tax ngeen euh, bàyyi yenn euh, matériel yoo xamante dafa xaw yàgg comme bant yi ngeen tàppe parce que man mii di wax yow ni dama teela bàyyi jàng nag parce que dama dëkkoo ñoo xam dañu doon cuub mhm. léegi bi yàlla defee loolu nag man ma ñëw di tàpp ci ñoom parce que tàpp laa njëkkee woon mhm. mais nit ku nekk xar day weesu mbote mhm. léegi bàyyi naa tàpp bi ñeneen ñi ngi tàpp te moment boobu bant bi ñu doon tàppee bant ngéejaan la tàpp bi mm. bokkul ak bant karité mm. parce que instant bii nii am na yeneen innovation yu ñu def ci tàpp bi parce que mm. bant karité nañuy tàppee bant ngéejaan moom mooy ngéejaan bi mooy bant bu gudd bi léegi mooy tàpparka mooy tàpparka bi léegi yow yow mas nga si jaar mel na ni <laughs> <laughs> ah cuubkat la ah, léegi nag léegi na léegi nag moom macha allah léegi ñu ngi tàppee bant karité te ñaan ñan yàlla tamit parce que euh, mbasin cuub bi ñun yàlla daf ñu def ni que maanaam man su ma xoolee mbasin sax su ma xoolee tissu mën naa la ban coton moo si dem. waaw léegi am na même même fitness gold bi nga xam ne moo génn ci tabaski bi. Mm-hmm. ñoom jóge nañ Allemagne ñëw di def formation ci ñun. pour xool na ñuy xoolee tissu yi maanaam qualité mbasin différence bi. Mm. d'accord am na solo. Mm. di fàttali mbokk yu déglu yi ceux qui nous ont en cours yéen a ngi déglu seen émission sans filtre ñu dalal Khadim Mbaye artisan le teinturier euh, Khadim yéen euh, seen métier bi c'est vrai que euh, bëri na ay jafe-jafe nga ñëw rek ci yan jafe-jafe ngeen di rencontrer sànq Morphal mi ngi koy wax. produits yi ngeen utiliser est-ce que doo leen matériel protection yéen a ngi koy am ak euh, jafe-jafe daal yi ngeen di rencontrer de manière générale. waaw jafe-jafe bi ñuy rencontré dafa bari. Mhm. parce que booy xool jafe-jafe bi njëkk a mooy que maanaam ñàkk site boo xam ne dañu fay dañu fay nekk. Mhm. parce que tey jii nii cub bi li ñuy wax rek koo jigee ku nekk muy la no produit chimique la fii du place am affaire yooyu noonu. bu ñu mënoon am ay place yoo xam ne état dinañ si jàppalee nga xam nii mhm. képp koo xam ne dafay bëgg cuub comme ñu ni zone industrielle ñu ni zone spéciale pour cuubkat yi la. Mhm. loolu bu ñu ko mënoon am tamit dinañu dinañu kii parce que tamit mënoo di nekk place foo nekk rek place boo nekk rek ñu ni jàq la fa tey suba nga demaat feneen jëlee la fa. Mhm. loolu dafay metti tamit waaw. Euh, am ngeen matériel ay masque ay casque waaw ngeen di utiliser waaw fi ñuy liggéey ne alhamdulilah fi ñuy liggéey entreprise la parce que booy xool plus de trois cent personnes ñi foofu noonu mhm. te li ñuy employé ci ay per ay nit buñ buñ la ko waxoon chiffre bu chiffre bu mag lay nekk mhm. kon kon yoon la état mën ñu jàppale tamit ci li nga xam ni ñu ñu ngi ñu ngi si di liggéey te xam ni ay ndaw nañ dañuy bañ a sàcc bañ def dara pour daan suñu doole moo ñu si dugal ko mm-hmm. mm-hmm. kon ni état di jàppalee yeneen yeneen facteurs yi ñun bëgg nañ tamit ñu jàppale yeneen cuub bi surtout na rawatina nag wàllu financement yi. parce que am na du ñëpp ñoo mën a demal seen bopp. Mm. am na si suñu yaay yoo xam ni mën nañ cuub bi am nañ lépp mais booy xool wàllu financement mooy seen problème. Mm-hmm. waaw waaw foofu mm-hmm. laa bëggoon ñëw euh, bokk ngeen association de teinturiers nationaux du Sénégal. Mm. Euh, financement yi génn na DER bi dégg nañ ko ak projet yi nga xam ne njiitu Macky Sall jug na bëgg a gunge ndaw ñi. Euh, yéen bénéficier woo leen si yooyu le financement. waaw ñun nag instant yi bénéficié wuñu si dara parce que association bi dafa yaatu te bi ñu ko sosee yàggul noonu parce que yàgg nañ na di ko mbébét mais bi ñu ko sosee yàggul financement DER bi tamit euh, ñi ñu koy ñu ngi siy waxtaan mais amaguñ si benn kii résultat boo xam ne daal moom nañ si gis. Mhm. kon mhm. yéen daal gisoo leen seen bopp ci gouvernement non gouvernement bi gis suñ suñ bopp gouvernement bi gis suñ bopp man nag damay def ay formation ci gouvernement des fois may ay ñenn ñenn ñi nekk ci gouvernement bi jël ma ma defal leen formation mais koo si wax rek dinaan la waa dañ si jàpp dañ si jàpp mais état moom gisuñu lenn loo xam ne rek état mi ñu koy defal parce que bu bu ñu bu ñu bu ñu bëggoon lenn loo xam ne maanaam li ñu bëggoon bu ñu ko mënoon am waxuma day tëj ci diggante Mali Sénégal mm-hmm. mais wàllu cuub bi tey naan nag ku nekk yam fa nga nekk ci ci wàllu cuub bi bu ko defee ñun sénégalais yi ñun li ñuy cuub ñu mën si gis suñu bopp mm-hmm. waaw mais mbaa moo defaloon du metti seen parce que boo nee ne ku ne mm. ne am si yéen yéen ak yéen dëkk yi parce que Mali ñu leen di jox tissu nee bu ñu nee tissu yi ma ngay jaar Mali ku ne mm-hmm. am parce que cuub dafa dafa yaatu boo xamante ne sax wax ko mm-hmm. ne daa am ñu ci wàllu yaan si mm. te ku ne da am ca guu bopp ñenn ñi euh, bu ñu gisee benn tissu dañ naan man cuub ma cuubu euh, Mali laa bëgg ñii nga leen defal ma cuub cuub bii ñii ne la cuubu Guinée laa bëgg parce que am na genre design bu ñuy def mhm. xam naa ap nga sax euh, am na cuub yoo xamante ne dañ naan la cuub bi xaw ma dañ ko dañ euh, ci loolu nga xamante ne moom moo daraam bu fekkee da ngeen ne ku nekk na yam ci ci yam est-ce que du andi jafe-jafe waaw Mor bu dee wàllu cuub cuub amul lenn lenn loo xam ne rek man ngañ ko wax rek te ñun mënuñu ko mhm. man damay damay def bati damay def yi hmm. damay bougie mooy sondeel hmm. sondeel ci bu sondeel yi hmm. damay def takk takk poussé dañ koy def dañuy def cliché cliché maanaam ci léger yi na nga chinois bi moo ñëw changé ko moo tax ñu yooyu yëpp ay xeetu expérience la ci ci ci cuub ay ay ay xeeti cuub la te bu dee mbasin bi tamit ñun fii nii Sénégal ñàkkuñu ay fournisseurs yoo xam ne ñi ngi fii nii tey bu ñu leen jàppalee mën nañu indi mbasin ku mel ni sama doomu ndey Ousmane si mi ngi HLM moom mooy indi ma ñoom góorlu Sénégal moo yore licence bi mm-hmm. ak ñeneen sax léegi gars yi ñi ngi koy yore mais moom moom ñooñu rek bu ñu leen jàppalee rek duñ jëggaani dara ci wàllu xeetu mbasin. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais mais seen cuub ngeen def da ngeen da ngeen di tëri ak kon selon identité euh, nit ki culturelle am parce que euh, damay gis forme boo xamante ne da nga koy mm-hmm. xool nga ne lii. guinéen yi ñoo ko moom wala boog mm. pëputo yi ñoo ko moom mm. nga xool benn benn design nga ne lii sa xel dem ci bambara yi gis benn design sa xel direct dem directement ci nga xamante ne tukulóor yi mm. donc ndax loolu euh, si xeet tissu bi la moom moo koy mën wala tissu boo mënta andi nit ki dina ko andi parce que am na cub may fa la gis boo xamante ne day jógee ci ñi ñii ràbb ñu andi benn benn tissu bu xamante ne dañ ko ràbb ci ci rabal yi ñëw cub ko ñenn ñi di ko sol lu mel ne euh, saraxule ak yu mel euh, ndax Euh, nit ki bu andee benn benn tissu ne la damaa bëgg lii nga cuubal ma ko wala yër bu mu sol ba noppi mm. ne la damaa bëgg nga defal ma ko comme comme genre bi mm. ndax da nga ko koy defal wala da xool forme tissu bi ndax mën na ko wala mënu ko waaw léegi nag loolu nag ci méngoo na ci que maanaam maanaam xam nga cuubu cosaan loolu cosaan cuubu aada la mm. ku mel ni tukulóor yi tey jii ñoom dañoo am seen i cuubu aada malien yi am nañ seen i cuubu mooy genre bogolaay wala Fuuta yi noonu sénégalais yi tamit ñoom noonu kenn ku ne si nekk rek ci ci mbasin bi nga xam ni mbasin bi nga indi pour da nga bëgg ni yére bi bu mel ni mm-hmm. laa bëgg nga defoon mm-hmm. da siy compte tamit ci ci ci kaw tissu bi méngoog ci li nga bëgg mm-hmm. waaw léegi man léegi man fekkoon na ma andi sama benn bu mel nii xuma golden bu weex waaw nee damaa bëgg nga defoon ma ko Euh, design fara fara mu nekk ay kii ni comme fara fara waaw léegi nag gis nga ma ñoom goldu nag ma ñoom goldu mënul nekk fara fara <laughs> mais yow yow dafa mel affaire yi seen bi nee naa la cuubkat waaw cuubkat la cuubkat la léegi nag gis nga ma ñoom goldu ma ñoom goldu cuubu tubaab bi créé ko pour cuub mm-hmm. maanaam lu jëm ci wàll artisanat mooy euh, super vainqueur jasne mm-hmm. super vainqueur mm-hmm. waaw bu boobaa fara fara bu mun rafet lay nekk waaw mais mais mën na génn design fara fara parce que fara fara ay différence couleur lu ma ñetti couleur yu ñu boole léegi def ko bu nekk 3 mètres wala 2 mètres. Mhm. bu ñu paree na tailleur bi moom moo koy taxale. d'accord waaw mais am na ay cuub ay bogola yooyu mhm. noonu ay cuub création yu rafet la yoo xam ni. Mhm. yooyu moom képp ku jàngul métier ba métier bi bënd sa bopp doo ko mën. d'accord euh, Khadim tout à l'heure nee nga yéen fi ngeen liggéeyee entreprise la te war na mot ay 300 euh, doomi aadama yu fay xëy. te je suppose que la plupart c'est des jeunes. Euh, voilà yéen est def ngeen ay jéego pour bénéficier aide war a mën waaw parce que xam nga jamono ji instant yi nii ndaw boo xam ne da ngay nekk ci benn affaire di yëngu dangay ñaan yàlla ku la jàppale mais gouvernement na amul benn yoon boo xam ne rek ñëw na ni dañuy jàppale wala dara. Mhm. looloo tax nag ñun instant yi nii dafa am man dama yëngu ci wàllu mouvement yi politique yooyu association yi. am na suñu benn leader ku baax koo xam ne tamit euh, mu ngi fii ci commune jëppal Derklé muy Babacar Sadi Bey mhm. ñu ngi ko bëggee invité foofu noonu parce que war nañu mën a jàppale parce que mi ngi jàppale doomi commune am mhm. surtout na ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg yëngu mhm. liggéey te yàlla tax waaw moom mi ngi si bay jéego jéego waaram bu waar bu am doole daal ndax ndax jëlee ngeen seen ministère bi yor wàllu artisanat ak li nga xamante ni mooy ay euh, lu ci mel ni fonds JIP ak yenn yi xam ñooy yooyu financement yu ngand ndax dem ngeen jege jege leen wax leen seen ay jafe-jafe surtout ak jamono ji nga xamante ne ñoo ngi judd wax wax Covid ak yooyu euh, ngir ngeen mën di gën a mën jëmmal seen liggéey au moins jël tissu yi sax euh, di ko jaay à l'extérieur yu ni mel. waaw léegi nag ku si mel ni tey jii loolu amu si. Mhm. mais ku mel ni man tey ji Pape Malick moom nga xam moom la mag Sall dénk wàllu foir international yi. Hmm. damay liggéey ak moom ci wàllu foire yi bu ñëwee nag yooyu dañ si am dinañ si am occasion pour ñu lancer. Mhm. lu mel ni jigéen ña ci côté jigéen ñi tamit. ministre de la femme Ndeye Saly Diop doon na leen jàppale ci yenn financement yi yoo xam ni. Mm-hmm. dinañ mën a jigéen ñi waa dañ si mën a demal seen bopp daal. Mm-hmm. waaw mbas mi ban impact la am ci seen liggéey surtout troisième vague bi. waa ñu nag dañuy wax sax mais première vague bi sax garaaw mais deuxième vague bi troisième vague bi. cuub bi dafa am lu bari loo xam ni daf daf daf daf ko laal parce que booy xool amul kenn kenn wóolootul ñëw ci réew mi ñëw jënd mbasin te booy xool na bu Sénégal léegi dafa yaatu parce que dañ koy jaay au niveau international surtout su raison yi nga xam ni ay ay euh, Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry dañ ñëw naan jënd si ci marché bi léegi na léegi na opportunité boobu ñu amoon pour ñëw di jënd si léegi amatuñu ko hmm. ba na daal am na sooxe bu baax cuubkat yi moom ñu ngi koy ñu ngi koy clientèle bi wàññeeku na ñi daan ñëw jëndatuñu nit ñi amatuñu xaalis mhm. waaw produit yi ngeen utiliser fo euh, noonu def ba jënd ko de dañ dañ koy commande par par par euh, lu bari mu jugee mu jugee euh, waaw produit produit bi amoon na benn usine boo xam mi ngi Allemagne mu tudd Dersar daal saa fa nañ ko daan jëlee mais léegi dafa tëj léegi nag euh, affaire marché bi dafa ubbeeku hmm. léegi day jógee Gambie day jógee Mali hmm. day jógee Guinée Bissau loolu waaw Guinée Bissau ngeen jëndee peinture bi wala Mali Mali nañu ëppee lu ñu jëndee parce que booy xool Mali moom hmm. foofu la lépp concentré waat ci wàllu cuub bi noonu waaw ah. ndax ndax fii Sénégal am na am na ñuy ñu ñuy defar lu mel ne comme genre euh, peinture bi ngeen di jënd lu mel ne euh, xam ne kay bi poudre bi ngeen jënd ndax Sénégal am na ñu am fii ay kii yu koy defar wala boog Sénégal amul amagul benn structure xamante di leen jaay xeme ba ngeen di jënd hmm. produit yeeg yenn matériels yi ngeen di def tàpp yeeg yooyu est-ce que Sénégal am na ñu koy defar fii non Sénégal nag amagul fu mu defar parce que hmm. produit yëpp Sénégal maanaam lépp loo xam ne rek moom nañuy yëngu ci wàllu ci amul lenn loo xam ne lu fi lay jóge lu ndox bi ñu daal hmm. ndox bi moo tax souvent booy xool ñu naan ciw bu Sénégal ciw bu Mali dañoo am différence. Mm. boo leen laajee ñu ne ndox bi ñëw niroowul. Mm. alors que ndox bi ndox bi waaw parce que ndox bi dafa am eau de javel mais loolu gëm naa ne ay wax la rek. Mm. parce que liggéey boo gis rek boo ko joxee ak xam ne di nga dinga nga génn langa nga nga ko bëggee. Mm-hmm. ci wàllu produit yi tamit am nañ ay fournisseurs yoo xam ni ay partenaires yoo xam ni ay ay étrangers nañ. souvent nag qualité bi moom mooy xaw dese parce que fournisseurs yi dafa bari. Mhm. produits yi mën nañ bari ci dëkk bi mais qualité yi ñoo dul bokk. Mhm. mais mais bant yi ngeen tàpp parce que bu njëkk bi de bant ngeen jël. waaw jëm ngeen essayer bant yi nekk Sénégal parce que bu ñu nee qualité may lay jógee. Mhm. est jëm ngeen essayer bant yi nekk Sénégal fii ak suñu ñu ne bant dimbi yeeg. bant xay yeeg essayer wala bant yooyu dafa diis day day yàq tuuti bi wala boo dafa am euh, bant kayite bi rek bu ngay yem bant kayite gi est-ce que jig ngeen essayé yenn façon euh, euh, bant yi nekk fii ngir mën def seen ay tàpp lu ñu mel c'est booy xool euh, bu njëkk bant ngéejaan nañ daan cuube nañ daan nañ daan tàppee te ngant bant ngeejaan am am pagaay Sénégal law béy dañ si daan gis seen bopp bu baax hmm. léegi nag dafa am benn benn benn moment suñu benn grand demoon Mali amoon entreprise boo xam ni bu mag la yoof bi mu ñëwee nag mu indi ay maliens maliens yi nag si lañ ñëwaale indaale seen i liggéey jumtuwaay liggéey gaay mm-hmm. Mm-hmm. xam booy dem guerre da nga yóbbal sa arme mm-hmm. ñu indi seen i bant karité nag foofu la karité duggee Sénégal ba tax na léegi tàppkat bu tàppatul karité rek doo doo doo tàpp parce que karité bant bi dafa am lu mu siy gée parce que boo boo dóoree yére bi yére bi ngay gis mu briller mu briller boppam waaw ndax bant bi daa gën a oyof wala wala bant bi moo gën a diis sax bant karité moo gën a diis que bu nee karité moom karité moom day ànd ak euh, xam nga bu ñu nekkay day am niin daal nii da nga xalaataa mm. xalaataale niin bi. d'accord ah, ah. euh, yéen seen produit yi ngeen utiliser la plupart extérieur lay jóge ba ci ah. tissu bi. waaw euh, tey ba pare ñu ne cuub bi Sénégal lañ ko defaree. Hmm. xam nga cuub bi kon euh, déjà matériel depuis tissu bi ba jumtukaay yëpp extérieur lay jóge ba pare hmm. fii lañ ko defaree est-ce que mun nañu wax made in Sénégal parce que Sénégal. Hmm. bëgg ngeen liggéey mais amul lépp li ngeen xam ne da ngeen ko soxla extérieur lay jóge waa xam nga sànq maa ngi doon sëñ Omar ni ma est-ce que bu ñu bu ñu tëjee yoonu Mali bi kon liggéey bi dina dina dina jaar dañ koy defaree fii rek mais daa mel ni cuub bi jógewu mais booy xool tamit euh, tey tubaab bi ñoom ñooy defar xemeeg sege bi mm-hmm. ak euh, produit chimique bi mais nekkul ñoom ñooy cuub maliens ñoom ñoo ñuy jaay mbasin bi fii nii mm-hmm. mais nekkul ñoom ñoo koy def liggéey bi si continuer mais ñoom daal finition bi liggéey adduna daal jàppalante yaakaar naa moment bi ñu tool jàppalante la mm-hmm. te doole mooy doon benn benn. liggéey bi est-ce gën a jafe mooy Sénégal amatul usine bi mhm. euh, donc est-ce nekkul euh, nga xamante ni ñu tëj euh, nga xamante mhm. a andi jafe-jafe yéen ñi nga xamante ne liggéey ci wàllu cuub gi parce que temps que da ngay dem ci baar nag suñu autorités yi ñoom tamit war nañ si bàyyi jéego bu bu am solo mm-hmm. parce que Afrique euh, day dëkk boo xam ni coton dafiy dafi dafiy am doole mm-hmm. parce que suuf si da koy jël Sénégal booy xool man mi sama sama sama maam moo nekkoon directeur Sotiba Moussa mm-hmm. Diop te Sotiba tëj na bu yàgg boobu ba léegi déggoo déggaatoo benn usine bu ut bi su ma jumu sax Serigne bu am na benn usine bu mu ubbi woon foofu noonu côté Kaolack noonu ñi ngi lancé appel daal ñu dooleel suñu yenn yenn yenn artisan yi ak euh, suñu yenn euh, liggéeykat yi ñu mel ni ay suñu ton papa Serigne boobu ak ñeneen ak ñeneen ñu doole leen ñu am doole ba nga xam ubbi fii ay usines yoo xam ne ay usines buy defar tissu la bu ko defee lenn duñ jëggaane lenn parce que tey jii booy xool ñun li ñu sol lépp dañ koy jëggaane te mm-hmm. alors que fii mën nañ ko fi amee mm-hmm. waaw d' accord euh, am na lu ma bëggoon wax lu am solo euh, gis nañ tey njiitu réew Macky Sall moom bëgg na jeunes yi ñu liggéey bëgg na jeunes yi ñu liggéey Euh, yi muy def ay tournée économique amul benn entreprise boo xam ne njiitu réew Macky Sall mu ko inauguré te pourtant entreprise moom mooy may nit yi liggéey. Hmm. bu doon day inauguré ay la jeune yi nañ liggéey mais yow ay tali ngay inauguré ay euh, ay district sanitaire c' est vrai que loolu yëpp baax na mais man ba léegi gisaguma benn entreprise usine textile bi ñu yoon usine hmm. textile euh, Sotiba Sotiba bu ñu doon wax hmm. tey bu ko ubbi woon xam nga ku ci mel ni yéen mun mun mun na ci liggéey ak ñeneen ak ñeneen yow ban message nga koy lancé tey côté boobu noonu ah surtout yéen ñi nga xam ne jamono ji ku leen dimbali di ngeen dem. waaw ñun moom ay ndaw nañ quoi ndaw ñoo xam ni dañoo pare pour service suñu réew. parce que fii lañ dëkk nag fii lañ màggee fi fii lañ juddoo jëluñu gaal di dem ci di réew mi pour lan pour dem inaugurer dañoo bëgg a toog fii lépp loo xam ni rek. Mhm. maanaam suñuy doomu réew ñu ngi koy soxla ak suñu bu ñu liggéeyee suñu suñu peut-être suñu suñu njiit yi jàppale ñu pour oyofal ñu ko. ñu mën a avancer loo suñu suñu réew dañ koy def mm-hmm. kon euh, Macky Sall ñu ngi koy ñaan tamit mu gëstuwaat parce que moom moo ni woon dina génne tant de milliards pour jàppale jeunes yi mm-hmm. te boobu ba léegi nag jeunes yi dégguñu dégguñu dara gisuñu dara daal mm-hmm. à chaque fois nag daf ñuy dicté duñu gis dara parce que wax dëgg yàlla visite kii tournée bi am na ay hôpital yu mu doon inauguré mais dégguma benn yoon ci wàllu lu jëm ci wàllu ndaw ñi. Mhm. te Sénégal booy xool quatre vingt pour cent yëpp ay ndaw nañ. Mhm. kon dañuy lancer appel mu mu war xel ndaw ñi. xam ni réew bu bëgg a développé rek ndaw da si dugal loxoom. mais si seen coow li amoon ci affaire euh, koppar yi ñu joxe ci wàllu kii bi euh, Covid 19 bi. ak artisanat bi mhm. ñu ne ñoom li ñu joxoon artisanat doyul parce que euh, ëmbul ñëpp. ndax koppar yooyu jot ngeen ci wala booba léegi euh, mënu ngeen fexe ba jot ci koppar yooyu nga xam ne ñu ngi waa secteur artisanal bi waaw ñun na loolu dañ koy dégg rek bi bi kon kon ba léegi koppar yooyu man ñun dañ koy dégg ñun moom dégg dañ koy dégg dégg rek nañ si am kon mm. ni ngeen koy déggee noonu lañ si déggee mm. maanaam waaw Mm-hmm. xanaa nga joxe sa dernier mot ak message peut-être euh, au gouvernement de cinq minutes moo ci des. Mafal mm-hmm. boo amee une question. Mm-hmm. waaw xanaa fi may ñëwaat rek mooy euh, dañ wax naan maison de l'artisanat bi ñu doon euh, bi ñu am parce que temps ñi li ñu njëkk xaar moom mooy ay mbiru. Euh, bant ndax yéen aussi bokk ngeen am ngeen foo xam ne goo xamante ni faral ngeen fekk fekk fa teinture yooyu bu ñu ñëwee ñëpp ñoo xamante ni ñoo ëmb wàllu artisanat wala bokk yéen da ngeen da am jafe-jafe ba léegi foo fu ngeen fu ngeen fu ngeen tënku ngi mën faa def seen liggéey parce que euh, xeetu liggéey ba ngeen liggéey dafa laaj euh, li nga xamante moom mooy euh, encadrement parce que war ngeen am foo xamante mm-hmm. moom mooy tënk yenn impact yi nga xamante ni seen produit mi ngi koy def ci wàllu environnement bi ndax loolu am ngeen ko ndax état bi tegal na leen ay ay bërëb yoo xamante ni bu ngeen demee yéen ñëpp fa ngeen fa ngeen mën a seen ay mbir lu lu bokkul ak foire yi nga xamante ne ci fal di bokk waaw côté boobu parce que tey jii nii lépp lu dem rek surtout sa réew rek état de si war a dugal loxoom parce que état moom mooy moom mooy mooy suñu kilifa. Hmm. tey bu ñu sañoon tey dañuy am maison boo xam ne dañuy dañuy maison kii lay nekk bibliothèque lay nekk. Hmm. lépp loo xam ne liggéey nañ ko bu ñu demee foofu. tourisme bu bëgg ñëw bu ñëwee foofu visiter ak ñeneen ñi nga xam ne tamit dañoo bëgg dugg ci métier bi foofu nañuy jaar ñu defal formation. lépp loo xam ni liggéey nañ ko tamit ñu exposé ko foofu. Hmm. ba bépp bépp gan bu ñëw bu ñëwee mën nañ ko yóbbu foofu noonu. ñaareel bi jafe-jafe bi nga xam tey moom nañu dund instant yi nii maanaam euh, respecté wu ñu cuubkat yi yaakaar naa Sénégal booy wax parce que ñu dañuy am jafe-jafe fu ñu nekk bërëb boo xam ni comme jam ñaajo bu ñu fa amoon benn espace boo xam ne état may nañu ko wala mu jàppale ñu foofu nga xam ni lépp kuy yëngu ci wàllu artisanal ci wàllu teinture di nga mën a dem foofu comme zone industrielle bu ko defee ñu gën a organiser wu parce que feebar parce que euh, cuub bi boo ko def ci biir nit ñi malgré dafa am ay impact yu muy def parce que baaxul ci xale yi baaxul ci jeune te mhm. booy xool lépp produit chimique la mhm. mais ñun fi ñuy liggéey nag yàlla defal nañu am nañ ay canalisation yoo xam ni fa nañuy tuur ndox bi fa ñuy de organiser nañ ko ba nga xam ni mhm. nekkul ku ñëw rek da ngay liggéey parce que dafa am ay ordre yu ñu teg mais ko su ma déggee baax ko ni nga waxee bu ñu ñëwee fekk leen seen bërëb bi ngeen nekk jamono ji liggéey hmm. na dañ leen di jam ñaajo pare ngeen pour dem fa si bu état bi bu leen waxee lu leer loo xamante ni moom ngeen di nekkee foofu nga xamante ni non pourquoi pas pourquoi pas parce que liggéey leen moom nañ bëgg te ku ñu org ku ñu teg ci yoon det yaakaar naa ne kooku bëgg nga dogguma la sax yéen am ngeen place parce que mm. am na euh, projet bu état bi di euh, commencé mm. euh, yàggul dara def nañ pose première pierre bi ñu ngi def foofu benn zone industrielle voilà waaw loolu noonu loolu noonu loolu noonu maanaam la waa maanaam waa bi mm. xam ni dañ fa bëgg a def benn maanaam fu ñuy tàggatee ndaw ñi ci wàllum cuub am benn daara daara moderne am am genre case de tout petits te surtout na rawatina nag mooy li ñu gën a am soxla mooy que fu ñuy tàggatee ndaw ñi ci wàllu cuub. Mhm. parce que boo nee Sénégal ci wàllum cuub Seredezo ngay si njëkk moom ngay xalaat waaw. Mhm. waxtu bi jeex na. Mhm. tàggatool Xadim Mbaye. waaw maa ngi gërëm ñëpp nag di gërëm Mor di gërëm civil civil. di invitation bi kontaan naa si trop na parce que ñun dañuy ndaw ñoo xam ni wax dëgg yàlla maanaam euh, dañoo bëgg bokk ci li nga xam ni moom mooy jëmale réew mi kanam surtout ci wàllum cu cuub bi ñuy nekk parce que bu ñu nee cuub rek parce que ñëpp mën nañ ko sol tubaab bi da koy sol nit ku ñuul nit ku weex kon dañuy ñaan rek état jàppale ñu mu maanaam teg ñu ci condition yoo xam ni képp koo xam ni daal di nga di nga liggéey ci wàllu cuub di nga si mën a gis sa bopp maanaam mu wàññ surtout rawatina nag ci mbasin bi nga xam ne moom moo jóge Mali mu wàññi ñu taxe yi parce que mbasin bi boo ko naree jëndee Mali ñëw indi defaat fayaat dédommagement boo ñëwaatee fii boo ko naree liggéeyaat day cher. Mhm. kon ñu ngi ñaan daal mu wàññi ñu taxe yi xam nga bu ko defee xam ñu ñu liggéey xam nga njariñ suñu bopp njariñ suñu réew daal. d'accord merci moo fa tàggatoo waaw voilà donc euh, ñu leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nekk ci euh, donc euh, liggéey boobu mu nekk liggéey bu am solo parce que Sénégal moom boo ci génnee sol cuub moom je pense que. dara du si des mm. donc xanaa rek di leen ñaax rek ñeen gën a jàpp ci liggéey bi rek te état bi aussi bàyyi leen xel te aussi tur bi aussi ñu bañ koo ñàkkal fay parce que Sénégal boo nee cuub rek ñu ñu tuutal la boo nee teinture ñu jël mbir mi mhm. xanaa ñu leen di wooye les les teinturiers ndax au moins jël leen a may euh, kii rek donc leen moom mooy euh, message bi may lancé rek mooy ci wàllu euh, vaccin yi nit ñi aussi nañu nañu nañu vacciné wu rek même fekkee jamono ji mbas fee jógee vingt neuf aussi état aussi na génn wax ak Euh, population bi si communication bu baax parce que tant que euh, sénégalais ñi ngi am ay éco ci naan vaccin Johnson Johnson baaxul ak ñi nañ ko États-Unis kii na ko sénégalais duñ ñeme mhm. te tant que sénégalais gis ñaan la kii vacciné na gis na commande bi def na ko ci loxoom ak euh, collègue naag affaire yooyu sénégalais duñ ñeme nañ génn buñ ñu duñuy rey ak ay taqaleer masque nañ génn def communication ni ñi mën a ñëw vaccin waaw tamit maa ngi tamit di masawu tamit kilifa nga xam ne suñu grand la li ko dal nii parce que tey Sénégal moom tey li ko dal mën na dal ñëpp te li mu siiw moo tax mais parce que ñi ñu diriger tamit mm-hmm. ñoom tamit euh, dafay am ñun ñoom kilifa ay jeunes nañ te mm-hmm. nekk di di di di di di xeex ngir askan bi mm-hmm. mais bu ñu leen jëlal bëgg nee jàppee ni que comme ay noonu état lañ war a déet parce que ay citoyen lañ comme ñëpp daal merci beaucoup Khadim Mbaye ci sa teewaay kontaan nañ trop di la souhaiter bon vent euh, ci seen liggéey di gërëm euh, Euh, suñu euh, technicien bi euh, di gërëm moo faal donc ci sa teewaay fii donc mhm. ñu leen di jox dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen tem ak beneen invité